foo nekkoon fan yëpp sa yaay léegi ñu ngi may woo di la laajte. ma de. xam nga sag la gis naa ko muy dox fii dara dalu ko sàcc la di sàcc sama nijaay bés bi sama nijaay ñëwee dinaa ko wax. nga sax si xol. ba ci bu doon sama yaay la nii lu ma def du ma ko def. <laughs> non xaddi daal ànduma ak yow. danga réew ndax li ma la may dafa ëpp te lu ëpp tuuru yow danga yabaate waay yow koy traité de sàcc ñàkk jom ba bëgg dee. xamal la laal moo tax xaddi daal moo si dem. wax ni mu ngi sa kër. bëgg nijaay nga wax a wulli ah. sonn naa sonal na ma torop te duma moromam fii la ñëw may génn lu may traité de sàcc pour lan. nijaay sama yumpaañ nii deretam mooy sàcc magam bi sama commerçant maa ko romb muy dox mu nga wel rek. Eh, ah. nijaay kii moom tax naa ko mu daw. yaa ngi tooñ ni nii yaakaar nga ni war naa mun a daw. Samba Samba baal ma jógal rek ñu dem aywa. ñu yëngu kër ga. ok eh, nijaay ma am naa avocat de. kii daadal ko ko. kii ko waxoon naa la ko. kii daadal ko ko. man ma fenn. kon yow ndegete coow li bari yëpp dara dalu la. maa mun a yàgg ni may wax mun a. daa rus daa dal ko. ana ana ana ana li fexe li di ana déedéet di doon xeli fan la toj kii laay laaj ci bopp ko li tamaate bee ko muuroon. kii yow yaay saay-saay yaay wëyu yaay bandi yaay kacapa yow man nga bugg a teg diin mm. yow kon ndekete affaire tiriyan yëpp man nga bugg a teg diin mu ne yéen eh. kañ déreetu sac ngeen yoon mm. waaye ma ne dimbali ma nga naan u vidéo yi rëy mbaa jàmm la. jàmm ne woon ma dem seeti ci Cheikh mu laaj ko lan moo tax mu ne day takk mu xel di par awu bay. Cheikh la wax loolu jarul jooy doonatul yaa Cheikh. léegi nag leen laa la bugg a xamal. sama xaalis teg ko ci sama loxo sama un million bi nga xam ni jox naa la ko teg ko fii man kenn du matériel way laa rek wuli wuli la. jox jox jox million yi wala wuli wuli ma gis nga def daw. Samba. ma xam damay compter ba tur waa. su fekkee ne jogoo jox ma sama. million wala wala waaw dinaa jug dafa ndànk. jogaale jënd suñu xaalis. dinaa dinaa dinaa jug rek. sama goro nga sama lépp nga yàlla boole ñu dëkk dëkk bu rafet ngay sama goro. nga bugg maa dir yaa ne nga a million dafa am benn xale bu jigéen bu ma doon tong tongal pour ma andil ko may bu njëkk moom laa jox benn cinq cent mille bi sama ay million nga joxe cinq cent waaw beneen cinq cent bi des nag mi ngi ak man mi ngi ci biir. indi ko sama xaalis. jogal gaaw. jogal dox normalement may wax muy jéem a nekk fii di jéem a. waaw kii mooy triant det det det kii de sa coon na ma. dama commerçant. kon yow daal sama un million bi nga xam ni moom laa yëkkati jox la ko ngir nga jëndal ma ci géej ak géeju beer da nga maam ay diwtiir ak ndoxu li nga moom yëpp ndekete moom nga tiriyaande ne dañ ciy sama waxu mooy sama waxu tey xam ne ku li aj ku li ajjee man te billaahi ndey biram ak maam biram du benn na sa xol sedd ne ne yaayam jarul jooy um xayri dama la sëy bi du fi amee tey du fi amee ëllëg sama bakkan bi laa ci teg kii dàkk ma këram nañ du fi amee du tayeef nit lu ñëw ci kawam da koy nangul xam ne du tayeef te xam ne seex yow la bëgg dama ne la soccu weeragam googu du ko fi takkee kooku ndeyam dundul baayam dundut te yow sa ndey nga ne jow jowaara di la xool yàlla naa fi yàgg te na sa xol sedd fomp say ronkoñ te xam ne say jooy fet na maay sa ndey nee naa la sëy bi bañu ma ci dara bañu ma ci ba wàkk nguuna wala déggoo samay wax jugal nga lekk nga naan nga sangu ba set lii laa la wax te xam ne umu xayri duñ ko takk tey duñ ko taq ëllëg man maa la wax lii këy xëyum kat sàmbaara xëyum seret nag du benn su ma la ko waxee man sa ndey gëm samay dugg dugg samay génn ëpp seen xëy ñoom ñaar ñëpp Cheikh yow la bëgg tey yow la bëgg ëllëg jaru jooy jaru triste yaa ngi jeex tàqul li nga woowee ba ma la fi bàyyi ba tey yaa ngi tëdd di misère ak xalaat di jooy pour lan la loolu lekkal ba suur nga naan ba màndi nga jug sangu ba set dindi sa tubéy ji dafa tàng xëppoo ndox sol sa rob bu ñëw lekk ba suur naan ba mànti baal sa jooy baal sa jooy kat bu ma jaax noppi loolu du kaa du jooy bu ko jooy noppi jógal nga ñëw sangu noppi li ma la waxee am bu soobee yàlla yonent bi Cheikh du ko takk tey du ko takk ëllëg man maa la ko wax te jaan ci suuf tànk ci kaw yàgg yàgg dañu dinañ xam ne maay sa ndey lii ci sama bakkan bi laa ci gar bañu ma ci ba naka la yaram di fanaane jugal xëppoo Cheikh dina xam lépp dëgg la na soxol sedd billaay doonatul yaag umu xeer doonatul yaag Cheikh man mii di sa ndey maa ci xar sama tàngatu dinañ xam ne jeeg laata fes naa sama place barke yonent bi sëy bi fa amee bi soobe yàlla na soxol sedd sangul nga lekk ba suur nan ba màndi may sa ndey xaama jug woote baaba taa ñoxo rek meer ñi laa nag sama maaman yëpp laay woo mu xëy rek na xam ne loxo def loxo mun na koo dugg may sa ndey fii muus fi naa lay ñeex ay man fu ma jëm man yaay bàyyi sama doom ci gàcc man ndeyam ci gàcc li ma nar ci digg dëkk bii war a tànn koñ ba koñ li ma yore ci ay nat li ma war a teggi li ma leble ci këri àddina ay man tey maa yuux laa ilaaha illallaah xanaa yàlla duma gàcceel ci àddina sama xaalis 500000 bi laa soxla nga jox ma ko rapidement na nga indi sama xaalis. Ah, wa illaa dinaa fi àndaa wulli mu. ma wulli ko ba mu nooy kii triant bu baax li ma man sax sequ maag moom dara. triant nga wayu nga bandi nga. escroquer saay saay bu bon bi. amul benn jërëjëf. may wax mu Samba commerçant. Samba sàcc nga. Samba triant. nga. waaye nag baax na. bu mu lay wuli de. boo doog doog loo mu wuli la de. saay saay bu bon bi aywa nañ ay wuli aywa man sàmm commerçant dugal naa sama bopp ci lu ma xamul de lu ma ci métti mooy wuli actualité sur actualité wër di wax nettal rek lay def fen rek la nekkee ci dëkk bi li ma métti ba gën maa métti nag sama tur bi mu nar a yàq fu ma nar a romb ñu naan ma samba sàmba sàmba sama tur bi mu nar a yàq rek ma métti xamante ni. ça va maa ngi rek. yee an seen waa kër. ñu ngi fi. gëj a gisee xanaa. yaa ngi ñëw ak fitna ak coono. waaw sonn rek. dëgg la ma fa. xanaa ma sonn rek. dëgg la dëgg la. xanaa daal jaaxal ki ma jaaxal loolu la ko wax. am na sax moom. damaa sonn waa am sa doom bu jigéen mu xëy rek dëddu la dem sama ma li lan lay la xëy dafa metti sama takkaay yëpp jaay naa ko neexale ko maama nii hmm? parce que maa jaaxal ah mu toog maa ko xadi ba xëy ni may ko première kadu xëy rek da tëréem wax nii sax dañ koy tuumaal. ndax dañ naan dañ koo may première cadeau est-ce que wóolu na boppam. lu leen mën a ci nekk. ah dëgg la de maman mais nag tamit xadi. jaaxal na ma de. mais xadi nag maman li ko nag xari daal nee na vraiment yow danga koo jur ba pare di ko nëbb ni ko juruma la ba mu dem dégg ko feneen. mu ne man maa ko jur. waaw xadi daal moom vraiment loolu moo ko nag xari. wala moo ko jur ku koy jur. Ah, loolu dina wala xadi bu dee ne fa ne maanaam juruma ko sama yaay samay famille ngi fi sama yaay ngi fi. na dem na ko maam sama yaay ndax moo ma jur xale am na ko ma mën a laaj waaye di fàq di tërëra di ci xale bu jigéen rafetul mun nañ ko dëkkale feneen sax ma dinaa jël sama doom ci farata si yàlla sunna su maamet yar ko ba mu màgg mu xëy war ma ginnaaw naan ma juróoma xadi dafa am lu nekk ci moom defe naa ah, ah lii lii lii moom moom fu ma koy waxee lool de man daal bi mu ñëwee fii keroog ma téye ko waxtaan ak moom ni ko lu tax ngay def lii xam nga yaa ngi fi àll seet jaaxle na li ma expliqué daal mooy daf koo daf sama yaay juruma ba daal mu dem dégg ko ailleurs ñu ne yow juróo ko ba pare ko nëbb loolu xam naa ne nëbb boobu daal moom la. waaw booy nëbb kay dafay fekk li ngay nëbb dafa am looy nëbb. dëgg la de man damaa nëbbul dara de. loolu dëgg la moom. jur sama doom yor sama doom ba mu màgg xëy wan la ginnaaw naan la juróom lan laay nëbb man moom kay mooy nëbb ndax moo ma wax ne yaa boy nee nañ ma juróoma kan moo ma jur. Hmm. wala mu dem ba ci maamam na ko maam sama yaay nee na juri ma kan moo ma jur loolu la xadi waroon a wax.

xaj jaaxal na ma ba ca kanamu yàlla. man ah, xam nga jaaxal na ma ba ca kanamu yàlla waaye gis naa ko suñu borom. dëgg la yàlla baax na. barke yonent bi gis naa ko yàlla ak yonent ba. dëgg la dëgg la sonn naa taay naa nelawatuma guddi nelawatuma bëccëg. lekkatuma naanatuma. dëgg la maa ngi ni yoroma dara. dëgg la barke yonent ndax mais daal xam nga lan mooy solution bi yàlla baax na léegi ñun nañ jéem a def tuur rek ko gisaat buñ ko gisee mu jéem a toog. waaye xayru ma toog ba xadi toog bu keroogee kay duma ko sax gëm. dëgg su boobaa xadi dina xam. Hmm. ndax maa ko jur wala juruma ko wala woon ma kan moo ko ko wax kan moo koy na kan mooy dee. surtout surtout loolu tamit vraiment loolu nekkoon na loo xam waaye xam nga rek la te xam naa ne xëy na jaxasoo na. dëgg la de. daan mbirum seytaane dëgg la seytaane daal moo man. dëgg la seytaane moo man mooy fekk ndey doom xaajale leen waaye nag gis naa ko Maodo allah. la borom bët bu rëy bi. maa ngi dem kër kenn newu fa maa ngi moom rek fa nekk mu xëy dem yoonam. aywa yàlla baax na. yàlla baax na. yàlla ko yàlla yëngu. amiin waay amiin waay amiin. ba day def maa ngi dem. d'accord de toute façon moom incha allah bu fi ñëwaatee rek. jàppale ma ci ñàkk a jëmbatee waaw. ok merci beaucoup. ok allo allo oui. est-ce que yaa ma raw. maa la raw maa ngi nii ak sonn tey dama sonn maa ngi nii fatigué léegi nii sangoo gu ma defagu ma dara damaa sonn tey moom damaa préféré ba ci génn. bu ñëwee te sangoo ma da baax na. <laughs> wii sama ndey si yow daal waaw d'accord maa ngi ñëw. Okay, ciao, ciao. Total. daal sëñ Moussa yóbbu ñu xaalis nga may ñaata nga soxla woon. 15000 laa soxla woon. ñëw salaamaaleykum woo ñëw nga ne salaamaaleykum ñëw ñëw ci kër boo ñëw ci kër da ngay tàggoo mais doo jeg jeg rek ne salaamaaleykum jël nii. demal naa la woo. xalaatuma dina ma jox 15000 may demee noonu. Eh. Cheikh tey dama lay bégal. Hmm? dama lay defal yow xanaa doo dégg. il faut nga bégal la. soxla wu ma bégal ma. jëla xaalis bi nga dem loolu laa soxla ci yow. waaw jógal nga dem suma ma soxlaa nga bégal ma naa la woo jógal nga dem. du ma dem moom tey dama lay eh, sa morom de du ma sa morom laa wax jógal jógal. jóguma lu